la mel motax bo beugé yakamti ndax ne sëriñ bi né na sayu sayu mo topé jëm ci yalla yalla rek ñittel nga bëgg yegg né na ma nattu la ndax lima lay natto moy ndab li nga yor da tilim dama kay raxas raxas googu nak bo muñul doo ko fa nek bo muñul doo ko fa nek dana metti lol sëriñ Abdou Lahad Mbàkke la waxon fi jaar sëriñ mbacké mi ñu wax la fi jaar dana wax ni sama kërëk touba gi bima nekké khalifa la fi saxal ñël la ko jitu won yenn mam maam ko yenn taay du ma ko am daana jële fii ay gej mom seigne Saalu mbake di dem di dem Côte d'Ivoire de ko fa jaay seigne Abdou Lahad da nga daan dem fek ci tolam mu jëyee machine mbay bi di bay seigne seigne sëñ la nee ma toog nanu fi ci ngaay ma ak mom mun ma gis nga néeg balé man ka ah mun ma mo doon nekk seigne Abdou Lahad engrais bi nga deg ne ko dan jaay man ka ah mun ko mun ma fi la ka dan jaayee néeg la ka fu doon jox ko caabi damay xey gis buntu bi bu ko rek ma am seigne Abdou Lahad Mbàkke ñëw na bi bu ñewé moo daan jaayal boppam nee na su demee dem ba dem nee na ma koy jaayal bu ñëwee ma wert ko nee am na bis sax nee na sëñ Abdou Lahad ni ko Matar mun ko mbakke mun ko waa Daaru Muxti kii mu ni mu ni sekob Daaru Muxti naa leen bàyyi nee na mun ko lu tax mun ko dan dan maa lebal ñetti téeméer yi bëri gay alaam te fay ko bi metti lool sëñ Matar nee na man ko Mbàkke yow kay doo leen bàyyi ñoo lay bàyyi mun ko wax nga dëgg dañoo may bàyyi te nee na bisub keroog sëñ Abdou Lahad oto bi mu indi woon amul essance bu ko yóbbu nee na mun ko oto bi dafa jagadi xam nga ñoom ay wolof la ñuy wax dafa jagadi mooy dafa paan sëñ ma taane ma dem yóbbu ko ñu liggéey ko fanweeri dërëm laa ci fay te nee daa bu ci manqué woon xam nga loolu yàgg la nee na ma andi ko mun maa xam naa ne ndox ndox mu ma yóbbu day su ma ko amoon ba jëmatil dana baax waaye oo ma ndox mu ma yóbbu ndax jëmatil rek laa bëgg dem fekk na Tuubaa la bëgg a dem sëñ ma taane maa dem ba mu fees mu ñëw ni ko Mbàkke am oto bi di waxuma jëmatil waaye man naa dem fu la neex mun ne ko kon nag naa far dem Tuubaa ndekete loolu sëñ Abdu Lahat sëñ Abdu ni ko matar mun ko mbacke mun ko ma lay sant ma lay geureum sëñ sëñ matar niko ko bi sëriñ fallu mbacke mi nga xamni mok sama waajur ñoo bokk ndey ak bay muy khalifa sëñ touba bu ñewoon fi lima lay defal lima kay defal du wess lima lay defal yi ñaar kep la yemale nek te loolu duguna na sëñ Lahat ne mataar nee dem ba am ba nek khalifa sëñ touba neena benn bis ma ñew ci mom mu jox ma ciabi auto ni mama tal ak ma waxon ko bisit an nañu dem ci daara ja sëñ Abdou Lahad yónnee kafe ñu defar café gi kafteeru café andi ko suukar suñ ko suukar amul ci daara ji mu ni wër leen ñu wër wër gisuñu dara mu ne li ma ci xam daal nañ ko xel nu ko waaye mën a naane naane ko noonu nee ba na xel sëñ Mataane yenn saa yi am ko xool ko mu bàyyi ba mu fénété mu yàbbi ko ndax day weex doo ko mën a naan te sëñ Abdou Lahad moom lu sa fu suukar ak lu sa suukar la woon waaye nee na bin demee ba nga xam nekk na xalif sëñ Tuubaa nee na benn bis ma ñëw ci moom am ñu indi fa camion suukar sëñ Abdou Lahad ni dem leen sotti ko ci kees sot ñu sotti yebbi ko fa neena ngon jot ban jul taksan neena mu bot loxom ye nam ko baxon di def ne di wër ci kër gi nee ñu ànd maak mom bëgg si fini yebbi sugar fi mu ko lay jiblu penko dal ni nan ma tàngalal ñaari kafteere café ta bu ko ken sugar ne ñu tangal ko andi neena mu ni xëccale ma ben sugar ne ñu ñot di bëgg si mu xar ñu teppiko ko muy tibbu sotti sugar ba mu saf neena xel ne seigne mata ne ñu na ya mun ko matar mun ko mbakke mun ko sukur mun ko café gi lum lay fatali na lool fatte won naka sax na man dina mun ko fatlu ku nga ca dara ja kafter café ba mat ba mat ndangal won ta amul lu ko sukar seigne mata ne ko waaw mbakke mun ko mun ko matar li lu mu doon mun ko mbakke li lepp sukar de mun ko xam nga tay luma neex mun ka mun ko liggéey seigne touba rek am solo ñom seigne touba la ne dan ko xol lepp lu dafa wax ni Clédor foofu laay jeexale Clédor Diagne journaliste bu mag magba, mas nako laaj ni mbacke talibi dano gis saa yoo sémbe mbir ab liggey diko ko day reey rëy goo xam dañ naan du yegg ta bu yegge nga sémbaat bu ko upp suñu bilaxat ba mu tontu jaaru ci turwa da ko ni jagn mu ni ko mbàkke mun nga xam nga fi tollu ci liggey seigne touba dama tollu ci waxtu wo xamni ku xey suba tok ba takusan ba jant bi jëm ci sox ta li nga wara def yaa ngi war a def balaa jant bee so ana kooku nu muy def mun ko mbàkke mu xanaa farlu mun ko foofu laa toll ci liggéey Sëñ Tuubaa moo tax lu daanu ma seet lu gën a rëy loola ma indi ko ndax Sëñ Tuubaa muy mottali lépp ne woon na dama naan dox di ko séen sama kanam di ko gestu di ko séen sama gannaaw di xool sama ndajoor di ko séen di xool sama càmmañ di ko séen waaye léegi nag gàcc na ma ñaar loxo ya Sëñ Abdu Lahad moo waxoon mu muy Sëñ Tuubaa gàcc na ma ñaar loxo ya moo tax mënu def lenn lu wuuteeg lu bëgg Sëñ Tuubaa bëgg danaan wax ni maanaam dama damaa toog am pas-pasub liggéeyu sëñ tubaa lépp lu ma wuti xool ko sëñ tubaa ka fa indi lépp lu ma wuti sëñ tubaa ka fa indi ma far jox ko sama bopp foofu la suñu yëpp laxat toll woon kon foofu mu toll woon fa la murid yëpp war a toll kon ñu góorgóorlu àddina dem na sëñ tubaa nee na ñetti fan la démb weesu na ñu ngi ci tey ëllëg di ko gudd sama loxo bi mën naa dellu démb defar lu yàq woon mën naa fàggu tey mën naa mën na leen jiitu ëllëg defar lépp te du ngeen dem kon lépp moom la kon lépp lépp ñun taalibe yi lépp sëñ tubaa la lépp lu maa rek sëñ tubaa la moo tax bu benn taalibe boo gis boppam taalibe boo gis gisa sëñ tubaa ci moom jàppal ni mën na laa defar bu nu xeebante bu nu boddante ndax biir taalibe yi lu nekk ci nekk moo tax sëñ tubaa boo wax naa gone yi mu ni ku nekk ku ne ngi ci ku ne ngi ci wax waaye dawul wax gone yi ndax gone ñëpp ci nekk te ñëpp gone yi Sëñ Tuubaa la moo xam téeméer sàngam waaye gone bi Sëñ Tuubaa nga Sëñ Tuubaa mooy mag comme mooy mag nag ñu ñëpp ay goneem lanu kon taalibi Sëñ Tuubaa yi ci la lépp nekk bu benn taalibe xeeb moroomam taalibeem ndax boo ko xeebee alal Sëñ Tuubaa nga xeeb te alal Sëñ Tuubaa kenn ko xeeb boo ko xeebee rek def nga njaaxum bis boo ko bis boo ko xeebee rek xeeb nga Sëñ Tuubaa misaal ma lay jox nekk na ci njaareem am ku ñëw ni ko mbàkke gone yi de yemunu dara mu ni ko kilifa de bu nee ci këram nga ñëw ne ko sa gone yi yëruwunu waxoo ko waxoo gone yi moom nga wax kon lépp loo laal ci taalib bi Sëñ rek na nga xam Sëñ Tuubaa nga laal ñu ñu ngi nii micro yaa ngi micro yaa ngi nii technicien yi da ko fi indi bu ñu ñëwoon di di jël micro yi di da lu ne mu dugg léegi mën ko tegal micro yi da ko moom moo tax alal nit bu amoomee alalam da koy sàmm Sëñ Tuubaa nag taalibeem yi ñooy alalam da bañ naka ba nee duma ko jox koy fowe tax kon am na ku mag mu a génn jamono taaw ba ko wuutu woon teguwul ci yoon mbooloo ma ko toppoon sëñ bi de toppam yàgg mu ne woo leen ma diw ñoo ko mun ko bàyyil kii nga topp demal ci diw daal ko yebal ci rakkam noonu la ko toppee ba taalibe yi ko toppoon yépp jeex mu ni nii laa koy doxalee taalibe yi ñooy sama alal duma ko joxe koy fowe kon taalibe yi sëñ Tuubaa yi ñooy alalam nan fonk alal sëñ Tuubaa yi te mooy taalibe yi sëñ Tuubaa yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.